rek di wax yoo xamante ne si lu kenn xamul te boo laaj ñi leen di faj di leen di lay xamal ne kii carrément rab moo ko jàpp nga ñëw ci sëriñ mu ne la kii mën naa la mun naa ko faj lii ak lii la laaj da ngay gis mu defal ko ko mu wér mu jóg ci sens dem kon bon kon bon bu ñu xee rab am na ñun war nañu mën a gëm ne boobu rab rab am na. ay ca sëñ bi gis nga liñ doon seetaan nga xamante ni tey jii malades mentaux yu bari nañ lool ci réew lan moo ko war. sa très intéressant da nga lu am solo. malade Manto, danaka reportage bi boko ko da nga nan Sénégal yëpp ay malade Manto ño fi nek ndaysan sama yaram dafa daw ma ngay gis ngeen di laaj euh, soxna si mu nan ñun amuñu ku dimbali xam nga koku euh, ndimbal la laaj ci lan ci walu fajj xam-xam ñu melni Cheikh Ibrahima kayta yi nga xamanteni ni yalla xamal na len naka la fajé les malades manto xam-xam la rek euh, rab dana ko waral rab dana indi eh, nit ñàkk xelam rab mooy jinne nee jinne dana gis nit rek dugg ko bu la duggee day am ay organes yu muy jël ci yow gis nga eh, jinne day soxla organu doomu aadama comme nu mécanicien di soxlaa organu oto dem jëndi ko ñëw monter ko ci otoom pour di mën a fonctionner otoom jinne noonu lay soxlaa organu doomu aadama mm-hmm. kon looloo tax tout le temps rek samay waxu démb mooy suma waxu tey nit danga war a ñàkk sa bopp protéger wu ba nga xamante ne ni les mouve choses yu mel noonu da nga ciy mën a mucc parce que jinne nekk na loo xamante ne ni gis nga dinaa la wax ci jinne lenn gis nga nu ni ngay gisee kayit bi nga téye wala sa téléphone bi nga téye noonu la jinne di gisee bopp jigéen bu musóoruwul yuur yuuru bopp bi ci boppam noonu la ko jinne di gisee looloo tax suñu mag ñi daan ñaax su seen ndaw yi di leen ne na ngeen takk seen bopp yi na ngeen di def ay voile parce que c'est très intéressant kon ñi nga xamante ni musóoru wu ñu jinne day leen yàpp pour koŋ leen ni ñuy wax saa su da leen di parce que yow imaginel sa téléphone ni nga koy gisee bu dee la jinne di gisee yuuru jigen lépp lu mu fa bëgg def te te et puis jinne yu dañuy dox di tufli nit ñi wala dox di saw nit ñi dañ koy def wala di leen sàndi ngelaw yoo xamante ni day indi nitam xelam dem yuur doomu aadama dara xaju ci tooke bu ci laal rek mooy départ na léegi nag nit ki bu départee te fa même amuñu moyen wala fa même yemuñu ci ku mel ni Cheikh Ibrahima kayta looloo tax ngay gis lu mel noonu mooy li ngeen gis noonu. ci réew mi ñuy. ay xale lañ ay xale. waa tu vois moo tax aar nit aaru aajowul ci mag nga wala xale nga ndax ndogal ku ne lay dal. ndogal bàyyiwul kii doog a judd tey ba ki am 60 ans ba ki am vingt ans wala 40 ans ndogal bàyyiwul kenn jinne da koy def mu ëpp ci li koy def jinne yi dañuy sadd nit ñi jël seeni organe jël seeni organe xam nga dañ ne organe na bu ñu organe xel yi dem ci góor dem ci jigéen est-ce que jinne jigéen ñi rek la gën a taamu bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn day dugg góor day dugg jigéen parce que reportage yi góor ak jigéen yépp ñu ngi ci day doflo doomu adama complètement parce que gis nga nit limay wax ni médecin yi faj walu bop xam nañ ko yuur ci côté droite bi fi am ben ki bu fa nek ben sidit bu melni comme ni wextanu xar di placer wo ci xolam non la sidit bi nek fi jinne buy doflo nit lay toj bu ndimbalu suñu borom ba mën a wér mais lu mooy loolu dangay ngay dof carrément moo tax nañuy fagaru di ñàkk suñu bopp di aar suñu bopp xam nga ne lii metti na. lii metti na metti na ci ndaw mu mu dal waaye boo xuusee si biir reportage yi dégg nga benn waaye boo xamante ni nee na nit ñi ñoom ñooy dem dëkk fi nga xamante ni place rab la ba pare duñ ko toj tal. c'est vrai pourtant su may émission dama koy faral di wax gis nga lii di dëkkuwaay kër boo ko jëndee balaa nga kaas balaa nga faa teg benn brique ñëwal seet si mel ni Cheikh Ibrahima Keita parce que jinne yi ak nit ñi ñoo dëkk jinne yi dëkkuñu ci kaw asamaan bi de déedéet jinne yi ak nit ñi ñoo dëkk nit ñi dundee kay mooy puusal ma toog wala may ma ma toog puusal ma dëkk. puusal ma toog moom garaaw na de boo leen poussé duñ la pousse. non ça veut dire que boo amee ñaan dañuy xam ni nit mooy yilif jinne gis nga terrain jënd nga ko def fa say ñaan yoo xamante ne bu doon jinne ak njabootam ña nga fa dañuy jóg dem xajal la nga dëkk. mais boo ñëwee rek rëdd tawax jóg looloo tax ngay gis. nit tàq ak yooyu noonu nit bu fa juddoo am problème nit ñi di am déformation mal mal déformation képp ku fa am doom doom bi du nekk nit nit bu mat loolu dafa bari et puis man loolu ñaata kër laa dem maanaam toccal ko da ngay gis des fois nit daf may wone ma suñu kër dañ ko gental kenn dëkkatu fa da ngay jékki-jékki rek évance tàq des fois ça arrive nag ci yenn kër yi ñu jékki-jékki éponge tàkk waaye nga jékki-jékki ay affaires yi sew di génn ci kër gi am ñoo xam ne ci seen garab lay feeñ am ñoo xamante ne ci fiñ dëkk ci seen biir yi néeg lay dafay feeñ da jékki-jékki gis jaan génn jékki-jékki gis mala yoo xamante ne ni xamee woo ko lu mooy ca àll ba nga koy gis ci kër gi et puis boo ko reyee balaa moo am un mois nit dee fa mm-hmm. ah doomu jàmbur boo ko reyee rek gis gis musiba moo tax nañuy ñàkk suñu bopp lii di place lii di dëkkuwaay lii de appartement bu bees même néeg bu bees boo ko loué balaa nga fa dem fexeel ba def fa ñaan parce que li ngeen gis nii ci reportage yi jombul kenn. du dee kayita mii de man de damaa toog ci télé bi rek gis ko. Mhm. ma man nag jour ba ma ko doon seetaan nag am na lu ma sentir sama yaram bi yëg ne na man kii mooy ki ma war a fam. taa. loolu waa Manda. si laa ko wari ji ba may ñëw fi xaw ma quartier bi numéro laa yor di ñëw. kaw dugg naa ñetti kalandoo yo xam ne dañ maa sànni may wër Ibrahima Kayta di ko wër di ko wër ba ba ma egsi fi te ba mu fi ñëw ma ngi ak bi xel bu set de na fi def def def melukaan yo xam ci kër gi sax na ma dàq ndax sama doom jee ma ko doon wax ki ma àndaloon moom ma doon wax li ma def yëpp bàyyiwu ma ci xel sax waaye ginnaaw ma dàq wala mu ko bi nga nit la waaw ginnaaw bi nga waxee ci say

niñ ko daan défé rek nuyu mm-hmm. Sénégal nuyu bitim réew mm-hmm. nuyu soppey ka TV ak Sopay Cheikh Ibrahima Kayta mm-hmm. di len dalal yewit di la nuyu ak sa équipe di len ñaanal jamm yalla yalla def jamm ci réew mi yalla ñu yalla jammal ñun ñep allahumma Cheikh bi ñu gis né buñ xolé né malade mental yi wala ñi nga xamné suñu borom jagnew leen xel dañu bëri ci dëkk bi te eh, bëri gi bëri na macha allah mi gëni bëri té dafa am leneen luñ ci sétlu lu gëna doy waar muy bu fekkee eh, ay jigéen lañ ñu gis ci ñoo xam ne tey dañuy dem ba dañuy wann lor te du ñu xam situation yi naka lay demee ci côté boobu noonu mm-hmm. euh, tey médecine traditionnelle nga nekk koo xam ne Sénégal yëpp dañuy déglu sa kàddu mm-hmm. tey mm, naka nga gisee naka nga jàngatee mbir moomu ñaawlu ko mm-hmm. mu nekk mbir boo xamante ne ni mbir bu triste la parce que malade mentaux yaakaar naa ku euh, ku ko ku ko ku ko dimbaliwul war koo mën a yërëm waaw liñ naan boo gisee lu daw yaram te dawul sa yaram seetaatal sa bopp dëgg nit koo xamante ne ni nit la ni yow waaye yàllaa jël xelam yàlla muur ay xelam nga war a xam ni kii ku soxla ndimbal la waaw souvent nag dinañ gis ñu leen di sàkku mhm. foofu bu ñu taxawee ci point boobu rek dinañ ci mën a débattre mhm, parce que am na. ñoo xamante ne ni dañ leen koy digal. Mhm. ci ci ci ci côté boobu noonu. waaw dañ mhm. leen koy digal. Mhm. fexeel nga sëyeeg. est-ce que nit ku xelam neexul. mais nu mu mënti mel bu dee màgget la bu dee mag la bu dee. xale la nu mu mënti mel rek fexeel ba sëyeeg moom. mais loolu lan moo koy waral ci lan teg ci lan lay euh, doon am na yenn ci féticheurs yi. xam nga dafa am jinne yu bëgg lu salte est-ce mhm. que dafa am jinne yoo xamante ni loolu mhm. boo leen ko defalee mhm. da leen di neexalee pour ñu mën la defal li nga bëgg allahu akbar mais yaakaar naa loolu àq gi ci nekk rek kenn xamul nu mu toll dëgg la benn tooñ nga doom bi ngay def ci biiru malade manto bi tooñ nga malade manto bi ku xamul naka la lan la nga teg ko ëmb non dafa yéeme ah non lolu lor nga ko dafa nek mbir bo xamanteni ni dafa bari dafa bari dafa bari ci jamono dafa bari dafa bari uh-huh. ñen ñi sëriñ ci dañ ñaan laan bo bëgge am alal uh-huh. bo bëgge nanga alal mën nañ ko am fekk uh-huh. duñ ko amé non noonu nit ki mën na am ay sangat yo xamanteni ni lu ñak ba faw am am dina ko ci ndey jor ak chamoy mais fekk c'est pas la peine muy teud malade manto limay xaw na bari loolu waaye maam yaa ngi toll si ñaata at guddee ñu toll. ñetti fukki at ak juróom benn am naa ka man xam naa loolu dégg ku dem ba am at woo noonu jomm nga wax loo xamante ni bu ko dégg man fenu ma de billaahi wallaahi lii ma wax moo ma dal billaahi wallaahi yàlla ak yonent ba mi ma yaakaar ak Baay ci man du ma fen de mhm. du ma fen lu waaye sonnoon naa waaye bi mu ñëwee ci moom ci moom daal gis nga aada fay ku ma wax mhm. ba lu may dégg dama ne demuma fenn ki ma demoon rek waaye ñi nga xamante ni nii dañu naan euh, li nga xamante ni moom moo di témoignage yi euh, dañ koy fabriquer yooyu yow est ce que tey jii nii ci ñooñu nga bokk ak ñi nga xamante ni dañu ni Cheikh kay Keita moo leen faj ba mu wér ah ki ñu ne mhm. ma de faj na ba ma wér man mhm. te am na ñeneen ñu wax Ừ. Ừ. thì thì mồm nhất đi cái điện thì nhưng mà phải nó biết vài mình đấy mình mồm mà phải nó biết phải man man defal fii faj nag ba mu wér ak li ma ñàkk docteur yi ko si laaj bi ma waxoon fii sax dañu naan tewut ñu ne đây day day ñëw ne dispensaire ba tay cũng fu nekk dem naa fa nag kon daaxi day jaax waaye moom mì ừ. à li ma gis ci moom ku ñëw di nga gis de. kon daal yow mën nañoo jàpp ni cheikh bi ku ñëw daal boo indee sa jàngoro bu mën a doon di yàlla. boo ñëwee rek si sa sa jàngoro fii. ba mhm. gisee ak moom di nga xam ne gisee nga ak moom te ki nga gisee wallaay wallaahi bariwul li muy def keneen di nga def. Mhm. waaw. Mhm. te li ma gis bari na li muy def. keneen di kari moom daal li muy def si spécial waaw te moom da ci am yërmande te mm-hmm. moom rekk moo ko man te du la fayeku de yërmandeem la yor waaw moom moom du la fayeku yërmandeem lay doxee yërmandeem rek lay doxe ku teg ko moom dina ñëw fii si moom moom Ibrahima mii mm-hmm. ah sa xol dina seddale mm-hmm. ay ca jaajëf waaw juróom-ñett fukki at la ak juróom benn waaw ndax sama taaw bi may ñëw fii maa ngi si fukki fukki juróom benn laa ëmb sama taaw. 16 ans waaw dëgg waaw te boobu si Senghor la woon te moom taaw bi mu juddoon ñu nekk ak Senghor te boobu maa ngi fukki at ak juróom di fukki at ak juróom benn te am naa fii juróom ñaar fukki at dégg nga si ak juróom muy juróom ñett fukki at ak juróom benn maa la wax. waaye faj bu mel ni. comme li la Cheikh Ibrahima Keita Ibrahima Keita mii ah ku ñëw xam. man de maa ngi ku ñëw daal di nga gis ku ñëw daal nga gis mu ngi a toog te yër ma dem la àndal comme daal ku ma faj di wér te yër ma dem la àndal ku ma faj ma dem la àndal ma de li ma gis man mu ngi nii bi may ñëw fii dañu ma téye de ma fii sama doom ak sama sët barakalata kirifiya maga konnate namu namu barakalata jujuba kabala simbo namu simbo ɲɛ kalata maningalu bɛ tɔɔrɔ la namu marama ka mande nga Cheikh Ibrahima Keita jalolu be jatale kuki mala Ibrahima man nga dugu deli bali adama namu adama namu kali kani bani adama namu adama ni mogo ni ma don no sogo ma nato ala e don no wona to ala e namu adama jankani sogo namu aw sera jatale ma fo kurukan fuka man nga ke toyi jata jata jata Cheikh Ibrahima Keita Keita. Ibrahima Keita. ñii falola lá, Ibrahima ma.